Oustaz bu ko rokkee soo mat bu ko tokkee laa bu da ko mën dana noonu ñoom ñaar Elton kal na ko yëg ko du la tuur Elton kal bi daa sori da la tëgg bon dóor mu daanu dóor mu daanu dóor mu daanu dóor mu daanu naama ay waay dara la. Euh, du mënul leer. ndax lan lépp mënul leer. waaw maa ngi lay nuyu. dafa am guddi am bëccëg. fay naa la. dama la gis ngeen forte délégation yooyu ñaar nga xam lamb ji yéen la doon xaar. waaw moo ko dogal mais circulation bi. doy na waar war nañ ci wax. autoroute à péage boo xam ne boo ñëwee da ngay fay. ñu de day à péage la. nga man fii rek laa ko gis buntu Pikine loolu nag état bi war na ci jël ay matukaay. souterrain Baye Seck Ndonane. jërëjëf euh, kontaan teew kontaan ci waa Prestige TV di nuyu bu baax Pape Doumbouya di ko ñaanal yàlla li ma yàgg wax rek ne c'est un sénégalais parmi les sénégalais parce que sénégalais boo xam ne xooloo li la réew mi liggéeyal waaye yaa ngi xool li nga liggéeyal réew mi dañ ko ñaanal yàlla rek Prestige TV ca kaw ca kanam ay jaay ca Prestige. dama noonu di buru su ndeysaan mburu ba am la waaw doom bu màggee mburu ba am tuuma ne lañ wax la ilaha illallah te nag loo ci xamul mbëri naa kenn desul mbëri naa kenn desul Fallou may tuur naa waaw doom su màggee mburu ba am tuuma ne lañ wax xalama baa ngi oh quel beau geste multiples beaux gestes c'est ça le sport. oh xala ma lii bàyyi ba nee na wala du ma wax dara ndeysaan ma ngay buru suuf waaw lii la Fallou Diallo moom ah waa Dieng kay ren boog ma war a laale compte xoolal xoolal ma xale yi nee na dégguma leen Fallou nee na xale yi dégguma leen nee na dégguma leen ndeysaan xoolal loolu dut waagaam fi ne ne ay làkk séeréer séeréer la lu mu laaj jël looy laaj akay ndet jël li ngay laaj lu mu lànk na mu ngi suma ga njuru baam tuuma nda ja jox ah samba ne ma nga jëm ca xibla ya ma nga jëm ca ñaante xibla ya ma nga jëm ca ñaante xibla ya ma nga jëm ca ñaante xibla ya fenn fu la fa taxaw ga suul mbaa mu jot boobu rawaanam eh eh ko gisoo noonu na noon ci ñeenti xibla yoo waaw bu noppee fii jëm ba Jalas génn ñu yëngal ak sàdd bi. waaw mais c'est normal. ah c'est normal. waaye bee koo indi nag ma ngay ma ngay guux ma ngay naan. mais c'est normal. boo nar tey. waaw xanaa jàpp daan rek. mais ni nga defee sàdd bi gis nga ko. maytul sa ginnaaw mu nar yor na lu waa dem mu dëgër ci kanamam lu waa doon doy dëgër doomi papa kan jaa ngoog sëtum njaata baa ngoog awaay kii moo doon mbër bu soxla noonu ndeysaan ma ngay wongu ñante xeblay fenn mo fala falana sul mangay mingu gisogo na ko tagal oh falu topal mo sos koko rek rek 2 millions la siri jaxaro tagon ci as moko jël adra samar xamnam ko nah, ala ko la ko dara jël ogis ala nah, ko la jël pakala bu tagal ñom taku sal lo daf xala bi waaye am na combat de Gris 2 am na combat bu mag moog Gris 2 Gris 2 bu faas ko jox mais noonu mingi jëm ci Mikaela laa ilaaha illallah Fallou Gris 2 ñëw na xool ko. waa Fass ay dugg noonu waaw Fallou oh maytul maytul kii yaram wi tàng ay man eh, na mbër de eh, ay waa mbër mi lay mel nee na fii ngi noonu ndeysaan oh taal bi Serigne Babacar Sy baa Maodo Malick a ay Fallou waa Fass a ngoog donay Gris Bordeaux donay Mame Gorgui Ndiaye donay Mbaye Gueye Fass dugal oh, xoolal ma loolu waa Fass a ngoog ndeysaan Fallou xarama li jekk na ay waay yi donay Mbaye Gueye Fass jàngoog donay Moustapha Gueye jàngoog eh Fass yooyu tu leen mbër de kenn kit seenu ko di laajte kenn seenu ko di laajte. DSM nuyu naa la. waaye Seck maa lay ana waa Thiès. waaw waa fa ñëpp nga fa. naka a Thiès yamu leen ci lambi Thiès ak yéen a ngi ba Dakar. waaw c'est que loolu suñu liggéey moo laaj loolu quoi ndax tamit comme euh, yàlla dafa dogal yëpp ay la fii Dakar la mooy CNG bu mag bi fële mooy CNG bi ba pare ñu préparé drapeau CEVTA war ko organiser Mbour kon ak ak actuellement liggéey bi laaj na loo xam ne ñu démarré nañ ko bu yàgg ndax nit ki bu la wóoloo ba yëkkati loolu dañuy drapeau CEVTA teg ko sa loxo kon war ngaa war a war ngaa xool lépp saytu lépp ba xam benn faay du mën a am ñu ngi àndal ci rek suñu président Maysa Ndiaye di ko jàppale bu baax a baax a baax ba incha allah buñ gars yi ñëwee Mbour ñëpp seen xol sedd. Euh, Pambay kaay baax. waaw Pambay bu groupe baax. mais tey dañuy ñëw Dakar pour seetaan si làmb ju neex nag loolu moo ñu fi ndax wax dëgg yàlla ñun li ñuy dund ci làmb wax dëgg yàlla waruñoo yem région de Thiès rek fépp fu làmb tëgg fu ne boo demee fekk ñu fa samedi bi passé maa ngi woon Diourbel ci journée Assane Ndiaye ba man fépp fu làmb ne comme koy dund. daal la woo non andi wuñ ko mee maa ngi xool parce que ñaar ñiy bëree dama bëreeg ñoom ñëpp ñoom ñaar ñëpp ñu daan mataar donc man ki daan xam naa du bëreeg man ndax damaa daanu waaye ki daanu bëgg naa ko. kon loolu leer na oh kii moo yor organisation lambu Thiès ku gannaaw a ngi nii yow dégg naa yaa ngi préparé drapeau chef de l'État. waaw Seck naa na ñu ngi lay nuyu waaw ñu ngi ci wàccaayu drapeau chef de l'État di ko waajal baax ku ne xam na ne ren moom cee moo aye donc ñi koy defee Mbour stade Caroline Faye du 27 au 30. donc ñu ngi ciy woo Thiès waa yëpp euh, ñu ñëw derrière euh, l'équipe régionale de Thiès mais ci kaw loolu it ñuy woo axlu Sénégal yëpp ci organisation bi waaye di ci woo tamit waa Prestige di wax Pape Doumbouya ah na leen jox les moyens qu'il faut ngeen ñëw ci bis bi parce que yéen soxla nañ leen parce que gis nañu li ngeen di liggéey à travers Thiès waaye à travers le Sénégal ñu ngi lay encouragé yow Cheikh Ndaanaan particulièrement di la encouragé ba sa caméraman ñu ba di leen jaajëfal ah, rafet. à tout à l'heure Fallou Fallou lii maa jàmm la ay sox jug mais Armé moom soxe bala sox sox jugul Armé Armé soxe bala ko jug sox gii ko dugg waaye du ko mujjee oh. Armé tànk bi lay mi tam déet waaw xam nga aada cosaan lii la ndaysaan tegtal boo dugg soo coofal sa tànk ndajoor fas ko nga soox te yow daay ah ca lu maa tax boo xool loxo ba manqué nga ba ab cëwri nag am caxat am caxat a rangoo joxoon naa ndeysaan xas mi jël am xasum kel takk ci dënn bi daf ko dakk oh xoolal tam ak jaayaan gi fàllu tam jaayaan gi yor basante du soox eh wàcc na de wàcc na ñu ngi noonu ndeysaan Fall noo def ba gis njaxuto bi ah dama koo gis rek gars lu ne la ñu ngi di ci ji armé daal la soox moom moo armé lu muy soox mbaa jàmm loo Fall bàyyil armé bi Thank you. du caaxaanul dara xool ko lu mu la wax de wax Fallou kii mu nar waxu ko kii la fanaanoo kii la fanaanoo Fallou Boy cokkaas na sànq waaye dalul Baye Fall nga duree ko wuti ko ñoom ñaar Baye Fall Boy Diagne Baye Fall moo fere sunu càmmoñ tant bopp bi Boy sa dóor boobu kenn xamul dóor ñoom ñaar Baye Fall eh Boy Diagne door na sànq dal Fallou Boy Diagne bi mu baax na Baye Fall daa gros wul di ko doomu Cheikh Diagne arbitre ma nga ca digg ba eh Boy ah, na de Fallou Boy Diagne de door ko perkil mu génnaat Boy Diagne léegi ñëw na wàññi ginnaaw Baye Fall ñëw na eh Boy Diagne ñëw na ko ba ko door mu génn Baye Fall boo matu wala boo jaan tëroo nga xam ne lépp dëgg la. Baye Fall boo jaan Baye Fall door na waa door boobu toll. boo jaan tekki na sangoor yi sànni. boo jaan sànni na sangoor yi. sëriñ bi am na lay. Eh! <laughs> man de boo jaan door yi muy door. Baye Fall yoo rooti na. boo jaan uppercut ñoom ñaar. dëgg la de Pape Doumbia say bañ di ñu reetaan sooy kontor du mu doj Baye Fall Boy Diagne Adama Ba Adama Seck madam sama jigéen moom la àndal tey lu faalu caméra mu dagg monté tout de suite vite fait l'information en temps réel Dramé attelé leen attelé leen ñoom ñaar na leen bëri sifle waa na génn seen diggante Baye Fall Cokaas na waaye dalul Baye Fall ñoo ngi damante baraan Baye Fall dem na Baye Fall tóor dem na Boy Diagne tóor na ko Boy na ko Boy Diagne tóor na ko Baye Fall Boy Diagne Adama am fële dañ koo riig amul accréditation dañ koo riig fële. moom ay këyitam baaxul. moo tax ma ma ko toj ko suuf. boycotté boycotté. aywa booy booy Diagne Baye Fall. booy Diagne ak Baye Fall. le groupement mobile d'intervention. Euh, moo booy Diagne daan na boppam. booy Diagne daan na boppam. daa sukk rek ñu sukkandiku ko. xool ko xool ko. ay waaye lamb ku juumul doo daanu Sara Fallou Fallou Balla Siki Sara Balla Siki daan na Sara daan ko Sara daan na Balla Siki eh, bu rëy Sara daan na Balla Siki jëli bu eh, da koo rijaar rek tubb ko Balla Siki na oh Fallou tànnam Fallou ñu ñëw Koonsi Koonsi a ngi nii xool ko ay waay Samba oh, ay consul honneur sanda sanda honneur daan rek ndam rek ay leena ndam rek neena ndam rek daan dañuy tos dañuy tos dama ñu tos ga neena ndam rek ko sangri wa stade bi xool ko oh c'est l'émotion ça c'est oh, oh. Salama Sow Wondol Thiaw Sakhir ay ay ay dal ko wóor ko mu dem jàng-jàng Fallou Diouf dem la ilaha illallah xale bi doxal na xale bi doxal na la ilaha illallah goro caaray gaa ngoog goro barji baa ngoog goro barji gaa ngoog goro caaray gaa ngoog mooy mooy magu xale yi man li gëj naa koo gis eh li gëj naa koo gis man li gëj naa koo gis eh xale bi bàyyi ko xel. man bàyyi sax xel bàyyi leen ko xel xoolal ma li fàllu ma ngay sangu ma ngay sangu ah waay xoolal ma lii xoolal ma lii man fàllu yéemu naa tey te dama yéemu. naas a ko indi xoolal naas ah kon si mi jubóo bokkam ku jubóo say kenn koo jubóo naxoo ko waaw ku jubóo wala say kenn koo jubóo da koy nax ah ah Thank you. suba la Marley Boy Bawal suba drapeau Bamba Fall ak combat yu ñëw Iba Mar dinaa daj lamb yi si kàttanu yàlla. Assane Naoune kon dañoo dëggal sa wax ja saa yëpp bu jeex nga dul ñu jeex ma jox la beneen Boy Bawal Marley bu jeexee ma jox la fëgal a double moteur. mais Thiès ñoom dañoo nam nga ñëw fa tëggal leen lamb foofu loo ci xam. non maa ngi ñëw mois de mois de fin juillet Thiès laay tëjee sama saison incha allah wax Pambay ak Seck ba mbëri mbëri taxawagul doxagoo benn mbër. non non mbëri Thiès laay tëgg comme ni ma def Diourbel rek mbëri Thiès laay tëgg Mbour ay Tivaouane ay jam euh, ñaajo bëgg naa fa wane lu leer incha allah. ba booba. ba booba incha allah. Fallou Mbengue septième combat de la soirée ngi noonu. dox ci diggante Daouda Sandwich boo kiril Ansar fële suñu càmmoñ. war naa leen Jules boo kiril Sali. Dramé leen arbitre maa ngi ay juge am mu ni waaw pare nga mu waaw soufflé na génn seen diggante ñaar tey la samedi 15 juin 2019 fii ci arène nationale bu Sali oh ñaari mbër yaa ngay ñaar ku poñ dalagul congo amagul mbokk yi ñu fàttali tey la 20 ans tey la 20 am ko Luc Nicolaï vingt ans yàlla na ko yàlla def cent ans man na ko yàlla ko def ci barke Serigne Babacar Sy nit ku baax la Daouda Sandis ak Jules jom na bëgg a sàkku ya oh Gris 2 waaye nañ ñu may tuuti nañ ñu may tuuti Daouda Sandis ak Jules nañu xool ba xam Daouda Sandis Jules la Daawda moo feru suñu càmmoñ takk takk ba jàkk noonu Abdou tàggale nañu woowoon ci géew bi xoccaat na leen ci digg géew bi woo na leen ci digg géew bi waa Fass Baye Demba Sassane Abdou Sile war na fii ñoo ngi doxawaat ñoo ngi doxawaat jënte saaku ya ay Jules Jules mi mag la de wala ah, na lambi ah Dramé Sukol Fallou Jules da eh Jules cokaas na Jules cokaas na waaye Daouda na ko ma koy dàq plaqué takk na ko Jules takk na ko Daouda bal na ko oh Jules ñaar xaax Jules ñëwaat naa moom Jules ñëwaat naa moom ba Pogh Magu Daouda bañ na Daouda perkil takaliko ñëwal taxaw taxaw Jules door na ko mu rëpp Jules rëpp na ñoom ñaar ñoo ko ca suuf ñoo ko ca suuf ah combat bi tàng na combat bi tàng na eh, am na ku ne marro am na ku ne marro am na ku ne marro du si ñàkk du si ñàkk président ba naaw moo Jules la am daaw de waaye Jules bi daa mel ni gémmiñ gi dara nekku ci ñandu na <coughs> eh, am na ku président naaw de ñoom ñaar ak yëpp président bi wax de <laughs> Alaaji Moustapha Ndiaye waaw Alaaji Moustapha Ndiaye si yow may daji moog daaw de ñoom ñaar si la ñu wan ginnaaw daaw de door de jël tërëf ñoom ñaar ñoom ñaar yëpp a waaye da ñoom ñaar ñëpp a sonn waaye Zil kenn du moom Zil kenn du moom dëgg la waaw ndeysaan ay waay Zil Zil fi ne Zil ba xam ne suuf la Zil dafa sonn oh, bëre daa métti. waaw bëree métti ndeysaan daaw de daaw de cent dix cent Zil eh jom ji bari na nag Zil jom ji dafa am jom. lamb jom da cee da cee ndeysaan ñoom ñaar Daouda Sandwich na ca Jules Dramé nee na leen bëre leen Daouda Sandwich Jules tegante na leen bopp ñoom ñaar Daouda uppercut na ko ayo Jules Daouda Jules a ñëw fee seen camoñ ngeen boo ngeen mën a xonk li Daouda ak Jules da ngay demante da ngay demante baram Jules dem na Jules dem na dàq plaqué suruf na Jules suruf na Jules suruf na jàmbaar la xool ko xool ko nee na yëkkati na yëkkati ñibbi Fallou ñëwal. ñooy nuyu mais ñu lay fay Fallou. waaye sa doomu nag ngay indi. waaw suñu raq la indi wax dëgg yàlla. boo ko ngembee tey nekk ci ginnaawam gis ko mu doxali ban nga yëg ngay am. waaw yooyu yëpp ñu yëpp yéen a ko ah, ñu ko yéene am ba nii ñu sori ñun ñëpp ñoom ñaan yàlla yàlla may ko ndam quoi. comment fu mu fu mu ne comme. dañ koo gën a gis sorti. man maa ngi nii ah. maa ngi mën cee rek xaar combat. mais dóor yi tant que bawoo ko gars yi duñ ñëw. dañ ñaa xeex de dañ ñaa xeex. promoteur dox suñu sa diggante kenn. Ah, promoteur yi bëgg moo xaw a sooxe rek ñu ñaan yàlla yàlla indiwaat lépp lépp sottiwaat. yaa ngi dox doxal maa ñu bari mais yàlla dogalu ko xëy na yàlla moo dogalu rek mais nag gars yi a lu yéene bëre trop quoi mais yàlla baax na quoi xëy na lii dafa gën. maa bu Thiès maa dégg Diop boobu. da nga bëgg géewoo waaw bu su ma rek bu su ma yàlla dogalee amul benn problème ci moom la non bu ko yàlla dogalee rek bu demee ba laaj yàlla dogal ñu war a bëri ñu allah. ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi lay baax a baax. ay sa rak ngeen. waaw samay rak. Daaru Sandis yàlla may na ko ndam. Covens Reug Reug. noo leen waajalee. comme ni ma leen man rek ni ma seen mag doon waajalee loolu leen waajalee. faral leen lépp lam ma day dal xamante ni. nee na ma nee na maman danaa naan bàyyi leen lépp yoo xam yàlla. mais li ñu soxkeegum yàlla baax na am na ku ne benn ndam mu des ñaar yàlla yëpp mel ni bii passé mais fan la fan la toll ba bëgg a bàyyi carrière am nii dootul takk nga ba. sama ruxu toog ki bàyyi carrière am mooy ki sàkk dem am naa opportunité bu dem fu ne ci àdduna bi maa ngi Sénégal nekk sama problème maa ngi entraîné jàpp sama ñaambur lamb ji moo moo noonu lamb ju année su ko defee balance Ama Baldé Sa Thiès Papa Sow lamb ji moo xaw a taxaw maa ngi sama ruxu jàpp sama ñaambur daal. mais yow sa Sow ba tey nees dañ koo gis mu mel ni daal. d'accord dama kon rajaxe nga dëkk bi. bilaay daan naa booy yëpp. léegi yow kon sa diggante ñoom Tapha Tine ak gaay si kaw. nag ma ba ma xoolee ma xam laa. mosoo ndaw kay. Ah, kon dem naa fi la. promoteur dañ koo doxul wala. non si am na ñu may woo di ma wax mais xam nga lamb mooy li ma wax rek lu sotti am borom man li baax su baaxee max sax du ma du ma xaar da koy jëlee boppam donc ñiy pare daal te xam ne lépp yàlla la mais ñi suñu ko jàpp suñu ñàmbur. kon daal nees benn too ci léegi léegi du yàgg dara waa ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay sëñ bi. nga gunge sa rakk sa doom ñëw ba ci face mi dëgg loo yëg. waaw xanaa yëg rek si di dimbali yëngatu donte ne moo tax ñoo soog a bëre mais suñu xol bi day bëre suñu xaar day bëre bu ñu duggee ci làmb nag bu dënd yi bàkkee rek macha allah suñu xel daf ñuy delloo si ci moment bi ñu sëggee di yëngatu. bi ko indee bi ko indee tey rëg-rëg Papa Kane ji mbéy gay laa lay Papa Kane nga nga ñëw te stade bi tey combat boobu na la lay def. waafet en xol booy xool euh, histoire Papa kan ak Mbaye Papa kan ak Mbaye ñet yoon lañu bëree Papa kan daan ko ben yoon Mbaye Guèye daan ko ñaar yoon lolu carrière bu passé la parce que aujourd'hui ñoom ay maamu ñi bëri lañu ha ah, booy xolat té yow ñoom daan ñoo toll seen digi carrière wala bëree et alors comme que dañu wara a nak nañu rafetal ko te ñaan yalla aussi ni may victoire bu may ñu ñun victoire ñun wa face nooy noo nooy conseillé ngir tey ci diggante mooy loolu loo koy conseillé. non ni ma koy conseillé moom mënu ma ko wax waaye nag ànd nañ ak moom daal tàggat nañ ko e war nañu ànd ak moom ci géew bi daal bu diggee ci géew bi nag mu tari. Fallou Fallou lii rek doon doon na takkusaan lii rek doon na takkusaan Fallou Thiat bu Tapha Boy Bambara moo ñu wan ginnaaw nii. doxal sëfa fasal waral rek armée bu benn barak eh ñoom ñaar ñëpp ku ne daan nga moo tax may ambulance eh, ku ci daanu bu la tàllalee na nga ko jël eh, xoolal caat Fallou xoolal caat jàkk na macha allah ndaysaan eh, ba ñu koy ñaanal yàlla yàlla fëgg boppam Luc def na ca jëf ju rëy Luc Nicolaï yàlla lan lay bàyyeel li nga defal dafa booy bambara war na bépp sénégalais waa Cheikh la ko yow tudd yàlla yàlla fay la armée caat bu bambara tala samedi 15 juin 2019 fii ci arène nationale bi nga xamante si nii président le son excellence maître Macky Sall moo ñu ko jox ku ne bëggoon na ko waa ci kayam la ñëw waaye dama ni buur boo gis ab daga ma koy dimbali Matar Ba jàppale le président Macky bu doon moom lii du am de. Eh, arbitre da ngeen di xool ñoom ñaar caat pare nga armée pare nga armée ngi jot armée ngi jot armée ngi jot armée ngi jot kon si pare na kon si pare na kon si demam pare na oh jot karet pare na arbitre sifflé na génn seen diggante ñoom ñaar kon si ak jën kon si ñëw na jën ñëw na waaw arbitre bi ci biir géew bi combat bi ci digg géew bi dox ci diggante Armé bu benn bara ak caat bu tafa boy bambara ndaysaan oh caat mi wan ni ginnaaw bu leen fàtte moo daan tawa mujj ci kawam Armé ngi noonu ndaysaan eh Dany Balak kenn noyyootul Dany Balak tey kenn noyyootul waaw wax nga dëgg Dany Talla kenn noyyootul kenn noyyootul. Dany Talla benn Balak kenn noyyootul seen bopp. ñaari benn benn yi ñàkk a noyyi. waaye tey dina métti dina tàng. ndaysaan caat bambara armé. ku pañ dalagul congo amagul. ñoom ñaar ku ne tëye nga sa bopp dégg sa Thiat waaye saan Farouz daan na ko Mborante daan na ko wax nga dëgg moo tax moo tax combat bi combat sérieux la ci moom ndax daan waru ko. moom moom moom daan war ak yoonam day lëndëm. waaye ci ko di waaj a ñëw ci diggante Kosa na. Luc Nicolai ku mel ni moom fu ñu koy jëlee ko. waay waay du yomb ku mel ne Luc Nicolai eh, du yomb ci làmb ji. ndeysaan boo waxee rek mënu ci réew mi laa amee koy def eh, waaye bon Sénégal def ab bisimilah wax na génn seen diggante Thiat ak Armée Adama Seck manam ba sama monteur bu jigéen boobu laafal di nga amul Adama Seck. waaye Fallou Mbengue maa ngi moom maa ba New York ba Canada maa ba Paris maa ma soxla la may jox ñoom ñaar waaye ci tuuti Quench ak waaye ci tuuti Reug Reug ak Gris 2 awaay combat ci des ñoom ñaar ñoo ngay leewtoo ñoom ñaar dañoo baante xel joxante cër dañoo baante waaye lii du ko jeexal faaw ngeen daje faaw ngeen daje dagg nañ leewtoo bi léegi <laughs> ah ñoom ñaar eh. ñoom ñaar ña ngay lewatoo ku bañ dala dug ca nga amagul ñoom ñaar eh xoolal nañ ñu fi jëlee wax dëgg yàlla armée am na avertissement caan am na avertissement bëri leen lu jóge fii leen yooyu ñaar rek indiwu leen ñu fi ndaysaan faaw am ku jël décision Thiane ak Armé ñu ngi leewtoo ñoom ñaar ñoo ngi leewtoo ñoom ñaar gis nga nag arène nationale bi ñu àndaandaw man na gis nga ko ko feesal. boo det yombul bi sax vingt cinq mille places yombul feesal. moo tax nag gars yi dañu ñëw di fi tëgg ñoo ko waaye dafa seer nag la promoteur wax de moo tax ñu ragal ko. waaw ah, nan Sambil mille lañ ko loué daa seer. est ah loolu jot ko yombul ndax stade bi defuñu 32 milliards nag. dañu ko may 8 milliards lañ ci def. ah yaa ko sañ de yaa ko sañ. yaa ko sañ. man dama wax man. dara leer ma ci. gis naa daal ñu bind ànd siin. oh dugu oñ caadarasu caadarasu no ñoom ñaar Armé caat fi nga sëq na ko sori caat fi nga sëq na ko sori caat a ngi dóor caat a ngi suufal na suuf na dóor a barki waa jiwoon ak moom am na bu suñ ko reprendre reprendre ñoom Armé Thiat bëri nañu Thiat léegi wañ nañu ginnaaw Armé jàpp na ba mu dëgër Thiat jàpp na ba loxo eh, loxo boobu moo waroon a sa loxo boobu moo waroon a génne Armé léegi jàpp na ñaari loxo ci devanteeru ngemb Thiat jàpp ci poxotaanu góos bu soor xolu saw Armé jàppal déglu ñoom ñaar Armé léegi bàyyi na benn loxo ba loxo ndeyjoor gàll ko sol ñoom ñaar ñaari mbërëntaan lañu ñoom ñaar oh Armé roof na ko ca abal ca bañ Armé sànq ma nga set ca abal ca biir waaw Thiat dafa wëcceeg Rassoula ci taxaw Ibrahima Faye borom Lutte TV Ibrahima Faye Ibrahima Faye bees borom Lutte TV xoolal accréditation yi da koo yombal waaye nag bandi loo daan gaa yëpp ca kaw dana ma sekk daan ca kaw ma ne ko maa bañ maa ngi ci suuf maa bëre suuf. ndax fa nga jógee daa sori muy Thiès kaay benn dëkk ku bëgg maa ca kaw. mënul nekk ci suuf ngay toog. Ibrahima Faye bi leen tànn waa Gane li nga def seet ko. Lamine Seck liggéey bu rafet na. Ndeysaan liggéey bu rafet la liggéey moom amet ak gars yi. ndax Seck la sant ku sant Seck dangay nekk jàmbaar. kon on est une famille. Thiat Armé <laughs> Thiat ak Armé ñoo nga ca. ñu ngi ñu takk ñoom Armé saxar na loxo ma dindi ko ku ne ngi fër xool ci suuf caat fër xool na léegi caat a ngi fër xool ci suuf caat bàyyi na ñoom ñaar ay ilaha illallah Armé door na dem na pul dox lu jël caat doo la ilaha illallah caat da koo kot kote mbir wóoru ko da koo kot wóoru ko ca daan na jëli bu rëy da ko kott wéeru ko Caat da ko kott ko Arma jógol Demir Sow Demir Sow lamb nii la da daan baa daan la oh, fair play nii la ndaysaan nii la bu waaw xam nga bu daanu amul woon kon kenn du ko tëgg. tey ci war. naxoo ci ñim daan war. barke yonent bi gëmu leen. gëmu leen ndax ku leen a bëre. wallaay la waaye yàlla doo ko doon dogale na koo daan. daa bëri ba daanu. na jug defar war rek. yónnee mu ci benn. defal nañu. beneen saal bi ko doon conseillé nañu ñuy bëre. beneen saal. barke alquran ko bu ñu nee ma ne ko lu métti. nga ni ma. bi ñu laa walaatee lay. kon fii bu ma waxee. leen gàlle ma wax foofu. Thank you. Njaay lu taw mbay su may may mayu mbay sas ñuul Thank you. Robin. ma gën a xam. waaw waaw tuuti sol nii. Omar Kane rëgg-rëgg. lu ci kawam rawuli bët. waaw si tey maa daan maa ñibbi noonu Thank you. Quench Dramé ngi leen ñoom Boy Kaïré fu ñoo toogatul Feugeleu fu soo toogul Nass fu soo toogul waaw war na lii war na. dëgg la ndëndëm de xaw nag lu ca a xam. waaw soo xamul li ko taxawal ci diggante bi war na de. du jën Kaïré ak Quench. man yéen di ko d'accord naa. maa tere nan tàcc nañ de. waaw amateur yi tàcc nañ ko nangu war la def. mbër lii la mbër doon mbër waroo wuute takkusaan yu mel nii. ndaysaan. Oh, Fallou. wéree wa dem na kër. yoo xam ne dem nañ tànn taal ba ko war na mu sànni ci yàlla ci tool fi gi. Diène Kairé gi kabar conseil takk di ko arbitre nee na kaay ma yàgg leen maa moom géew bi maay dogal maa leen di boole maa leen di suba si lee ngeen joon talal loo xam ne li mu yor arbitre nee na kon na ko ca ginnaawam arbitre xool yu suusam tey la samedi 15 juin 2019 fii ci arène nationale arbitre si dana gën a seen diggante mooy amaat vingt ans di Luc Nicolaï oh Luc Nicolaï sa vingt ans yàlla nekk cinquante ans waaye Pape Doumbia l'infatigable un vrai Sénégalais c'est Pape Doumbia borom mouvement ca sa kanam un vrai Sénégalais c'est du c'est Pape Doumbia lépp loo xam ne suñuy da jëmale réew mi kanam rek Pape Doumbia ngi see contribué kon nag gaañi ne leen xujj di xool lu baax ci réew mi lu ma laaj jox leen ko Pape Demba Yaya Diène fi rafet na Diène Kaïré Quench l'inspecteur de douane Mohamed Niang Pape Diop bi maam na ko joxate faa mu nuyu la Quench dagg na na waaye demul Diène na waaye demul Diène dem na Quench sori na ko waaye Diène jàpp na Diène jàpp na si poxutaanu ngembu Quench jàpp na waaye dafa rëcc Diène rëcc na Diène a ngi door uppercut gauche ci suuf ndaysaan Quench Diène ñoom ñaar ñaar espoir ñaar yaakaar réew mi ndaysaan Quench nag boo xool daa bëgg a jàpp waaye fu mu jàpp ko to Diène jongale na Zonko Zongolo. James Zongolo na Kons. Kons Mulongo Watch. James Zongolo na Kons Mulongo Watch. ñoom ñaar Diène for na doole ñoom ñaar Quench la bëgg a jàpp na ñaari loxoom ci ngemb mu ngi jëm a door ci faar Diène jàpp na Quench moom it jàpp na Quench bàyyi door ci faar yi Quench bàyyi na door ci faar yi oh ndaysaan sànq Diène da koo songaloon ak mu la nga wàcc Diène bàyyi na door aberkil Diène a ngi door jërë nga door ay kos kos nga fayu ci ndogu gi boo dooraatee foofu Diène door na sànq ba uppercut bu daw Diène a ngi door ay joo si suuf cointre boo xool jàppale seen ak bëre lamb ji buñ fa waaye motar ba war na arène nationale buñ fa waaye motar ba war na oo oh, ñaari mbër ku ne am na doole cointre am na doole Diène am na doole xale yi ñoom ñaar ku ne entraîné nga waaye John dëggal na boppam taxaw John Kossy dëggal na boppam taxaw na yàlla yërëmal sunu way daw luy yàlla na ñaar bëgg naa ci moom bëgg naa ci moom ñaar ñoo ko sow waaw sonn nañ de. arbitre tàggal waat na leen. lan ñëw. avertissement Quench. avertissement Diène ku ne am ñetti avertissement. waaw bëri leen. Baro leen jóge fii ñoo ngi doxaat ndeysaan supporter yi jug nañu la boo nga laa mu jeex par décision arbitre la jeexee bu avant kenn ku ne bu amee avertissement kenn ku ne am na tar avertissement bu leen dolli la laa mu yaa ngi consulté seen waaw li ngeen di waxante ni bëre leen ko moo gën li ngeen di waxante ngeen bëre ko moo ko gën tolloo ngeen bëre leen déedéet déedéet bëre leen ah way waaw fair play waaw machine yi daa bokk ci lamb 黑夜翻了。 jëm ci waalo ali penda balla bey njaayam bay sa yaay Moustapha Fall sa baay bu ma xaye Fall moo tax na dafa jël bis bi dara jàll ko au grand Sénégal mu ngi noonu au bon Sénégal du lay mel gis nga ko noonu ndeysaan xam nga bis bi nag da koo dara ja da koo dara jaaleel ku ci nekk journaliste ba ñu war laa mën a dégg yaa ko formé jaar discipline te it un homme bon et heureux de la nature les tours le rend malheureux ou méchant donc seul silence est grand tout notre faiblesse boo leen wax dara ngi wax. wax moom dama lu ma bëgg a wax ci seen TV muy muy muy télé télé yi waaye animateur yi man ci yi et eh, jël ma dara ci borom seen TV jël ma direct animateur yi man ci ci taxaw sama doom jaa nii barke yoon ci yàlla Mohamed mën a defal ci teewaayu kan le ministre des di Makhtar Ba di xaritu sportif yi li ci gën a neex mooy ki nga xam ne na la moom ñaar fukki at lu topp mu jàpp lam di ko organiser di ko réglementé di ko defar ba mu toll mu toll muy Alioune Sarr mi ngi nii taxaw ak kan ak Luc waaye nag mbokk yi dafa am loo xamante ni waru koo fàtte mu di ki nga xam ne moo di télévision seen TV seen directeur di Bougane Gueye Dany moom it ñu war ko ci décoré tey docteur adjoint di Massamba ñëw teew mbokk yi tey jii di bis bu mag tan dama ci teewaayu kan ñu ne Bamba Fall Bamba Fall la jeunesse Bamba Fall bëgg Sénégal Bamba Fall meeru Medina waaye balaa ñoo def dara luñ jox kàddu gi Luc Nicolas Luc le ministre est là le président du CNG est là le directeur pour e des mi ngi fi Bamba Fall sa xarit mi ngi teew. waaw Bécaye damay am mbégte mu tey di wax ne tey suma xol sedd na am mbégte bu tey euh, di le ministre des sports xam na yàlla tey moom la dogal mu jiite sport bi représente fi le président de la république di wax ne nag mooy li may tàmm di wax man politique defuma politique waaye le président de la république man xam naa ko lu jiitu lii wala muy doon président te xam naa ne en tant que nit doomu aadama gënu ko xam naa ne ku ko jege xam ko di wax ne nag tey xam naa mbégte lool. jërëjëf sama nijaay ji taxaw. ah ma ko président. sama nijaay la ci deret di sama xarit di sama genn wàll doxal làmb ba làmb egg si fii. wallaahi dañ ko war a gërëm sant ko. jërëjëf national la l'Assemblée nationale Fallou gannaaw hymne nationale ñu rëkk junju bi bàkk bàkk réew mi jël li nga xam ne mooy centre bi nga xam ne camo di ko takk jox ko waa kër Bougane Gueye Dany muy Sen TV léegi ni ko laayeen koo def ba def du rëy tey jii mu yemoon sa bisub vingt oh il se retiendra ndeysaan ay waay doonay papa kan jàngook dama wax ni doonay mbëggee fas ya taxaw ne doonay papa kan ya taxaw ni oo oh. aw yoon boo caamee doom ba nga am cere Coulibaly wàcc la lii dina ma rey. c'est ça le sport. aywa tey ku yeewoon Fodé Douciba. ni ko sa koñ ba Pikine lu ne xaw fa. ku yeewoon tey Landing Njambe. mbaa nga yee bara bara. ah une minute de da ba ba ma noppi. waaw ndaysaan reerol toj na nan Fallou Fallou reerol toj na nan yàq na am lan yàq na cuuj arbitre da leen di seet waa Giriñoo duusul am na lu Giriñoo suul ci diggante moog reerol Reug for na ko sànni ko ko ñoo xëccoo fu ñu féete ñu ngoo xëccoo ndaysaan Reug nee na gaañu jug leen nee na jug leen jeex na awaa digganteem ak Elton na leen awaa digganteem ak Bébé Saloum xaaw na leen officer nanu Reug Reug a meta officer banana Reug Reug Gris demal na le ñanga noonu ñoom ñaar waaye Gris doo bu leen fàtte ay fi mu jaar ak Auguste fi mu jaar ak Pakala fi mu jaar ak Ablaye Ndiaye ay waay ñoom ñaar ñi miinante nanu ñoom ñaar oh, Dramé arbitre loolu doomu Cees arbitre mooy Dramé am na lu ko arbitre bi bëgg wax tey la samedi 15 juin fi ci arène bi nga xam ca ay son excellence maître Macky Sall ci leen ko amee ñun waa lambu waaye tey samedi yam ak vingt ans de lutte ni ko waaye ci Reug Reug am na avertissement moom daam lum sànni Gris 2 Reug Reug pare nga su fekkee gën seen diggante ñoom ñaar Gris 2 yéen dinañ ko wuti ko Reug Reug Gris 2 ñoom ñaar Reug Reug na ba bari waaye tiit Reug Reug nee na woon fu mu taxaw ma fekk fa ñoom ñaar eh, Gris 2 mi nduróo kon Gris mi macha allah mën na mbër ñoom ñaar Reug cokkaas ma koy indi ci géew bi Gris nga daag mete Gris mën na Reug ba woon ak moom Reug door na kor daje na ñoom ñaar daje na ñoom ñaar Girdo baax na ko Pape naa la le président précise Arama Seck Manamba Fallou maa ngi ci ma Saturne Ndione Malick Ndiaye Diouf ay eh waay waay précise ngoog ñoom ñaar Reug Reug Girdo Girdo jàpp na ngembu Reug Reug na waaye Girdeau moo gën a jàpp Reug ngi cokkaas goos ñam ñaar Reug léegi jàpp na ñaar loxoom ci ngembu te ne woon na gaay bala gënoon daan da nga jàppam dëgër Reug Girdeau ñam ñaar laa ilaaha illallah kenn du Prestige TV ban télé du Prestige TV suñu mbokk internet yi ñuy topp 3W oh feer nañ di leen jox li ngeen bëgg. Gris 2 Reug Reug Gris 2 bi gars yi doon tàkk lamb ji mooy sàcc mooy way mooy wax joxoon nañ seen gëwël bi wéeree rek ñoom ñaar Luc Nicolaï mosut a tëgg lu ndaw déedéet mosuma ko gis man. mouvement ca sox ca sa kanam mouvement ca sa kanam ndaysaan awaay Baxare Baxare Diallo ay waaye lamb leen remplacé bi ñu ngi noonu jàppante na ñoom ñaar ci diggante Fass ak Caaroy yi oh la ilaha illallah Reug Reug sangoo ba koo piis Girgay bañ estade <laughs> baa ngi riir Reug Reug dafa sang ak soobu rafet indi ko droite da ko yóbbuwaat gauche Reug Reug jàpp na de Nyonyor Nyonyor ñoom Nyonyor Gris 2 Reug Nyonyor ñoom ñaar ñëpp ay tengah lañu ñoom ñaar na combat tengah ku daan teg nga tengah tànk ci diggante Tapha tengah teg nga sa tànk ci kanamu laban. Tengah satang kecil karamu tànk déedéet déedéet ñom ñaar ku daan ko dëkkati wara la jël gi Bordeaux Reug rek ku daan di nga ñoko staff sori oh Gris Bordeaux rek Reug Adama sax madame ba sama jigen merci beaucoup satrin nañu ñoom l'inspecteur sant nañu la directeur bi programme merci beaucoup kii sama jigéen Dramé too Dramé tàggale na leen Dramé tàggale na leen eh ngir dee ngi daagu ci géej bi wax Dramé Reug Reug tigi jaaji Reug Reug boo tikee jaaji may sëñ bi aw lay xoolal gis nga ca géej lu mu ay gis lu mu ndural tey ñaar am si ne la waa la gën seen diggante ñoom ñaar gis nga Rebeul sunu ndeyjoor Gris sunu càmmoñ Gris moo ëpp yaram waaye est-ce que moo ëpp doole ndax sànq Reug Reug soxla na ko Gris ngi duggee ko wuti ko Moustapha Gaye koy nii Gris Bordeaux koy nii eh, Reug Reug Gris dem na Reug Reug jël ñoom ñaar ku ne jàpp na ngemb ñoom ñaar mbëru bëri na ñoom ñaar ñoom ñaar awaay yàlla bu mel ne diggante Coons ak Diène awaay combat bi yàlla jeexal ci bëre ñoom ñaar Reug jàpp na ba mu dëgër Gris 2 jàpp na ba mu dëgër Dramé ngoog toog seen di leen yër Dramé ngoog toog seen biir mu ngi leen di soññ naan leen bëri leen drapeau chef de l'État ram mbuur loo Thiès xaw la waaye ñaam ñaar bi dee Reug ñaam GM eh, yooyu kenn fay loon ñëpp jàkkaarloo géej bu leen yoon géej bu gannaaw lu njàngat la jox sa bopp réew boobu jox Gris 2 Reug Reug Gris ay waaye nu waagandi mu jekki bëtam kenn ku ne da ngaa jàpp dañu naa ku njëkk a def man nga dara Reug Reug mi ngi doon rek mi ngi wus rek di jekkal bu jekkee def li mu bëgg songale ko daan na ko waxoon na ko daan na ko songale na ko daan na ko daan na ko Fallou Fallou Fallou Fallou waaw ñu ko mu naan ma nga noonu ma nga naan ca njaq sa la ilaha illallah def na jaloore waxoon na ko waxoon na ko def na ko xale bi du nit kii du nit kii du nit dama dama am doole. parce que alxuraanu karim. sant yàlla. mais da nga champion la am kuréel. yàlla moo ma may naw. kan moo ci des kan moo ci des. jaay nañ ñoo ñu bëri. ah comme kan seet ah, si ma. jaajëf jaajëf. foo ma. bul jooy nag baax na. jaajëf. naa ma jël micro bi. def rek ab dis bunt. waaw xam nga waxoon naa mais da ngeen di wax ma leen waxoon ci commencement bi ngeen di interviewé nee naa leen bu ko jàppee mu moom bu ko jàppee lamb ji day jeex. loolu foo ko tegoon a xam nañ li may wax man du ma wax lu dul dëgg booy bi dafa judd mën a bëre depuis tam ba léegi zéro faute booy bi li mu war a bëre sax bëreegu ko te xaaral xeex bi xeex bi sax moo gën a garaaw. léegi tey seq na tànk fan la koy teg. non non ko téyel sa bopp gis nga giri giri volume la indi mais man rek ku daan ma rek man damay bëre dinaa am ngor jël sama revanche Gris Bordeaux bu bëgg fekkee li ñu war ci moom na jël booy bi nañ xam ndax mën naa xeex wala mën ta xeex. bu ko jëlee bu ko jëlee ñu defal ko bagage barke suñu tuwaan Papa ñu ngi lay nuyu. moom fiis ma jàppal le président ba mu taxawal lii tey bi nga ñëw ci stade bi gis mu taaru jekku lamp yi tàkk anam gën yëg nga ci waaw tey euh, sama xol dafa sedd may ñaanal président Macky sàll ak gouvernement am yàlla sunu boroom may ko fan wu gudd ba mu àggale projet yi mu sumb ci réew mi di ko ñaaxaat di ko kañ di ko bàkk di ko wax ni ku caq day moytu ku yor baatu neen ndax wax naa ni le avril le 5 avril 1962 bi Ben laa ñëwee Sénégal ci 4 avril ànd ak jur yi keroog Léopold Sédar Senghor sànd kursu la ko yóbbu keroog duut ba kaak Faalaay Baldé bëri ndax amuñu woon bu ñu ko mën a bëree tey ñu toog ba atum 1900 2019 président Macky sal def biisu bu mel nii tey képp koo xam ni tey sportif nga bëgg làmb wala nga bëgg football wala basket wala daray sport nekk ci sa xol bi nga duggee ci arène nationale bi sa xol sedd na. ñaareel bi mooy amul benn combat bu fi xejul muy Balla Gaye Bombardier Bombardier Modou Lo Modou Lo ama seen xej na fii parce que tey jii làmb ji li dugg lu li toog place yi des moo ëpp place yi coow li bari na waaye kenn feesalu. coow li bari feesadul arène nationale kon promoteur nañu bàyyi coow li bu ñuy tëgg làmb def ni Luc Nicolas ñëw tëgg si ko fii maa ngi félicité Luc Nicolas. di ko ñaanal ci ñaar fukki at yi nga xam ni moom la feete tey def ko ci làmb te marqué na époque parce que mën naa wax tey ni lig def na ci làmb loo xam ni promoteurs yi ko def bariwul parce que combat bu mas a të lig moo ko tëgg indi ko combat yi gën a riche Sénégal ko tëgg kon maa ngi koy félicité ci vingt ans carrière am yi mu def di ko ñaanal mu continuer ci làmb ji ba defaat quarante ci kanam bande gi nga gi nga nga xam mooy Pape Kane tey jii tax danay taxaw fii ci bi bëri nga assisté googu làmb bi nga gisee Gris 2 jàppanteeg Reug Reug loolu ban jàngat nga ci mën a defal. waaw xam nga waxoon naa ca départ ba nii diggante Gris 2 ak Reug Reug revanche la ndax Gris 2 caaro yi la dëkk bàyyi ma papa kana bokk bàyyi maay sëtu moodu Kan doy na woy ci làmb maay sëtu Sele Dieye doy na ndam ci làmb maay sëtu Ndaata maay sëtu Assane Baye Faly maay sëtu Buguma maay sëtu Treize Ndiir doy na tey ci làmb te xool naa tey caaro dañu ànd à masse kere bi Papa Kane di bëreeg booy bambara ni caaro yu ñëwee woon noonu lañ ñëwee tey. Gris ñàkkul dara li muy def rek mooy na dem defaruwaat parce que soo xoolee wax dëgg yàlla nit ñi xalaatu woon nit ñi quatre-vingt-dix pour xalaatuñu woon ne Reug Reug dana daane Gris Bordeaux nii parce que mën na ko daan waaye façon bi mu ko daanee nag songale ko wax dëgg yàlla am na ñu bëri ñoo xam ne xamuñu làmb euh, xalaatuñu woon ni noonu na. Reug Reug nag képp kuy bëreeg moom ci àddina soo ko bàyyee mu jàpp parce que saa jàppee da lay xañ jàpp du songulee kooku mooy kooku daf ko wéñ daf ko sukkër bi maanaam téye dëj tànkam yéeg ko dafay oyof ci moom suy dem dafa téye xam nga bi mu téye taxawut dafa téye yéeg ko wàññi boppam yëg ko ca kaw ngir yéeg diisaay mu dellu siwaat mu oyof mu tuur ko loolu tax jëli bi rëy foog mu dem ban jëli lay ndiroon ci jëli mag ña waaw jël boobu nuru na ma jëlu tubaabu joor ak Assane Baye fa ah, ak nuru na ma jëlu tubaabu joor ak jëli Birama Coor. ñu la ko daane woon. stadium Iba Mar Diop. nuru na ma aussi boo xoolee jël bi Balla Gaye daane Modou nii la waroon a mel waaye boo xoolee Modou dafa oyof. giri dafa diis moo tax mu teel a yegg suuf parce que poids lourd ça bu déclenché sa observation mën naa yóbbu boppam ci souf moo tax jël bi yomb ci mom len lay tëjee yow moy arène nationale bi coow li bare nañu ne du fi xaj. ken mënu ko feesal. dëgg sen mut lo Modou na fi mut lo Balla Gaye na fi Bombardier Gris Bordeaux xëj na fi même Sa Thiès même Boy ñang ak ki nga xamni ki moy mooy euh, Lac de Guiers xëj na fii li wér dal moy man lima japp moy

Reug Reug Sa Thiès combat la Reug Reug Ama Baldé combat la Reug Reug euh, yeneen mbëri si des yëpp combat la. ko noonu Reug Reug na jaloore nee naa bi il est eh waaye Ndakaaru amati nañ problème kii arrêté la Reug Reug giri doo mi ku ko mën a songale bal ko songale ba wéeru ci kawam ndaanaan ko waaye mbokk Luc Nicolaï en ko ñu koy jaajëfal bu baax vingt ans mi yàlla na ko jig yàlla doon cent ans ci moom mu nekkoon fii ci arène nationale samedi tey le 15 juin 2019 seen soppe sekk naa ànd ak Fallou Mbengue ñëwoon ci li nga xam mooy vingt ans yi nga xam ne Luc Nicolaï da ko doon fête ànd ak Adama Seck sama jigéen ñu ñëw nag lépp lu fi tukkee jël nañ ko te dinañ ko wisaare ñëpp teg seen bët loolu daan na Girido Coins nii na ak Diène Kaïré caag daan benn baraak mbokk yi mbir maa ngoog combat yi fi toftalu gis ngeen xale nu ñu bëre tuus yi neex na bàkk bi neex na le ministre Matar ba ñëw tey fekk mbir mi fii ci arène nationale bi mbokk yi kon ñu ngi joxoon dig daje di leen jaajëfal bu baax a baax PDG Pape Doumbia kenn du moom mouvement Thiès sa kanam Fall yaa ngi ci biir man dugg naa baay baay dem naa man Seydou Armand Diouf mi ngi nii. ma koy rokas jaas bu ko rokasee man bu ko takkee laa bu jeex da ko mën nee noonu ñoom ñaar Elton na ko yëg ko du la tuur Elton kal bi la tëgg bon dóor mu daanu dóor mu daanu dóor mu ay waay Samba